Senevision.com la crédibilité notre credo. Senevision.com world la Togo. kumpa Tagona. population bu Touba ñu ngi ci la candidat Amadou Ba loolu di kàddu Fatou Bintou Pouye. ñu ngi euh, di Yobonte. Ti ñi nga nyom nyom ñoom ñoom nga la population de Touba ñu ngi seen gannaaw gannaaw moom choix wu son mu ngi ko doon yëkkatee ci Mbàkke ci ndaje mu mujj mi ñu doon amal ngir dajale mbooleem parrainage yu ñu am ci département bu Mbàkke moom soxna si juróom-ñaari junni ci ay parrainage la daal di jagleel Amadou Ba teg ko ci loxo Pape Diouf mi nga xam ne mooy délégué régional bile. fu mu nekk nii foog naa war nañu atteindre 7000 ba tax na li yitteem mooy gañeek amadu Ba loolu tax na fu mu toll mu ngi koy fàttali ngir mu gën amal ak ubbeeku jëmale ko ñi nga xam ne ñoo di population bi lee ah nañu recommandé woon le candidat Amadou Ba ñu ngi koy gën a recommandé na gën a toppatoo nit ñi bañ a beddi kenn Touba est la première ville du Sénégal kon nañ leen gëstu bu baax lépp lu ñu war a am ñu am ko te lépp nag nekk dans les règles de l'art et dans le respect aussi ñu ngi sant bu baax suñu première dame Marième Faye Sall mi nga xamante ne moo yàgg accompagner

ci département de Mbacké pour financement wu jeunes yi ak financement wu jigéen ñi bu ko defee mu wóor ñu ne lu ñu bëgg dinañ fa àgg. moom délégué régional bu coalition Benno Bokk Yaakaar di Pape Diouf d'Al dinay fësal nombre de parrains yi ñu leen laajoon ci région bu Diourbel jamono ji muy xamle ne romb nañu ko. fii ma toll Diourbel 208500 lañ ñu sasoon tey jii may wax ak yéen te des na fiche yoo xam enregistré guñu ko. ñoo ngi ci deux cent soixante douze mille six cent neuf. yaakaaruma ne benn région Sénégal dinañu dab la ca des nag ñu di ko xaar te yaakaar ko mooy dañu fal suñu candidat incha allah. te loolu mi ngi am ginnaaw engagement ak détermination bu mat sëkk bu ñu am mu ngi ci sant soxna Fatou Bintou Pouye ak mbooleem coalition bu benn Bokk Yaakaar. kon may sant vraiment ñi nga xam ne ñu ngi fi teew tey soxna yaay Pouye mii ak ñeneen ñi nga xam ne. ñëwoon nañu fi ñëwaat fi teewuñu waaye ñëpp laa koy boole moom soxna Fatou Bintou Pouye ginnaaw taxawaay bu jéggi dayoo bu mu amal ci parrainage yi lee yamu ci benn yoon mboolem ñi fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar te teewoon foofu ay bernde yu takku la leen jagleel loolu tax am ñenn ci ndaw ñi fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar jota yëkkati seen kàddu di xam xamle ne jëf ji rafetlu nañu ko te soxna si diirub mu ñëw ci parti bi gis nañu ab taxawaayam. gis nañu parrainage yi daan jaar heure bu ñu ñëw dañuy joxe manqué wut mën naa ni coalition Benno Yaakaar loo ko defal depuis bi ñëwee ci parti ba léegi gis nañ taxawaayam gis nañ taxawaayam ci njabootu président Macky Sall mu jël leen indiwaat leen ci parti bi xeebul kenn daanaka dañ daan def manifestation yu mel ni bari mais lu mel ni daawul am kon nag su fekkee yàlla dogal na mu ñëw ànd ñun ci lii dañ ko ciy sant di di wax ne képp koo xamante le président Macky Sall nga bëgg le président Amadou Ba nga bëgg dañ ko cee war a jàppale ñun ñëpp. di am contentement rek comme tout la jeunesse républicaine contentement bi ñu am. ci soxna Yaay puy geste bi rafet na noble na. gis nañ doole ji mu indaale ci parrainage yi ni mu ci ñëwee ak njabootam gi ni ñu ñëwee di jàpp ci liggéey bi ak effort yi muy def ci ndaw ñi yeneen manqué woon na fi. ñun nag Macky Sall lañ am. Amadou Ba lañ am parti bi lañ am. ñun képp ku am kuy jàppale parti bi rek am nga ku jëppalewut parti bi moo ñu képp koo xam ne ñëw nga di jëf loo xam ne day yokk ah, mouvance bi doole di yokk benn benn bokk yaakaar doole ñun dinañ la jàppale ca la nekk ndax ñun parti bi rek lañ am ndamal parti bi moo ñu ñor waaye yaa ko jigéen ñi daal ñoo ko tax a jóg ak département bi rek dé ku nekk département bi rek yaa ko tax a jóg góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp la yemal daal day jàppale Amadou Ba di félicité ki nga xam ne mooy soxna Fat Bintou Pouy ci jëf bi nga xam ne jëf na ko coalition Benno Bokk Yaakaar li képp la soxla tey mooy nit ñoo xam ne dañoo ñëw ànd ak seen doole ak seen mbooloo mu bees parce que li am solo mooy tey yàgg nañu am parti bi amoon na ay nit yoo xam ne ñu ngi fi mais bu fekkee ne am na ay nit yoo xam ne ñëw nañu dolleeku ci li fi nekkoon ba pare di jàppale coalition bi jàpp naa ne ñooñu ñoo jar a jàppale. Talla Sylla di xam xamle ne ku mel nii le candidat Amadou Ba gën ko bàyyi xel ndax yitteem cëpp mooy ñëpp booloo nekk benn. donc ñi ngi wax Amadou Ba ne ko soxna Fat Bintou Pouy na ko gën a jàpp na ko gën a jàppale ndax taxawaayam ci dëkk bi rafet na liggéeyam rafet na macha allah donc geste bi ñu ngi koy félicité di ko encouragé. vision.com la crédibilité notre credo Sénévision.com, world ni ñuy kumpa